salaamaaleykum yéen waa Pastef salaamaaleykum yéen waa dëggal suñu bopp salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum gars yi dafa message boo xamante ni il faut ñu jàllale ko ah dafa message boo xamante ni dañ ci commencé di liggéey maanaam dafa am ñoo xamante ni dañoo yor doole yor gendarmerie yor police yor armée le plus lepp yor luy doole justice yor seeni mais bu leen fàtte ne ñun ñoo moom mbedd Nous sommes ah, patriotes yi ñun ñoo moom mbedd mi te mbedd mii yéen patriotes yi yéen waa waxal déglu parce que wax patron parti bi muy soleil. ak kilifa yi nga xamante ni ñoo jiitu ci parti bi yéen yéen a moom mbedd mi yéen yéen moom Sénégal bu ma nee yéen yéen moom mbedd mi c'est parce que yéen yéen a moom Sénégal ku leen neex mooy traîner ku leen neexul du traîner te man maa joxe mot d'ordre bi gis nga APR APR Benno Bokk Yaakaar fépp ci Sénégal non grata bu leen may ñu mitin fenn

déclencher nañ ko te ne jamais parce que Sénégal gii un ah, kenn ko patriote yi nga xamanteni ñom ñoo taxaw pour le pour Sénégal di xeex nak pour Sénégal gis ngeen li fi am fan yi yépp ci actualité gis ngeen li fi am fan yi ci actualité actualité suñu mooy suñu doxalin mooy suñu xeex mooy suñu wax mooy suñuy bët mooy suñu làmmiñ mooy suñu nopp mooy suñuy tànk parce que nit booy xeex ak koo xamante nii dafa jël sa doole yëpp jël sa alal jël sa justice jël say gendarme jël sa police lépp mbubboo ko pour néewal la doole da nga koy wan ne mbedd mi yaa ko moom yéen waa CFA Pikine yéen waa CFA Pikine yalla na yalla defal jàmm yéen askanu Pikine CFA yéen waa Jidda Caaray Kaw yalla na yalla defal jàmm parce que man waxon nako waxon nako depuis 2017 la sama rak bu nek France topuma ci Petit Gueye Modou Gueye topuma ci Modou Gueye mouvement la yor grand boul fàttale yaa ko defal li boul fàttale Petit gay, ak sama rak ñoo bokkon classe Modou gay Modou gay moy meeru Jidda tiaray Kaw mom Modou gay mom avant muy dem APR dafa ñew ngubbo askanu Pikine déglu len li ma len wax de dafa ñew ngubbo askanu Pikine ne len mouvement la yor day xeexal askan bi dem len ci var bi Macky Sall li mu nekké du yoon Macky Sall li muy def du yoon Macky Sall Macky Sall Macky Sall sama rakk wax bay bëgg a dee ma ne ko non kii munul nekk impôt et domaine munul nekk impôt et domaine bërki jëm boo njaay ñu dàq Ousmane Sonko parce que day opposé wu moom mu ñëw taxaw ne day opposé wu parce que dafa am lu luñ ko sant duma mës a ànd ak moom di ko jàppale sama rakk la nag lu ko neex na dem su ko neexee am xam nga ay ambition lépp mais man du ma mës a ànd ak moom moo liggéey moomu moo jël waa jidde caaray kaw tey tey la leen ci deuxième quinquennat wu Macky Sall ne day woote yoo pour Macky Sall am troisième mandat senegal xam ne ngeen baadoole yi xam ne ngeen jaam yi xam ne ngeen fenkat yi xam ne ngeen soskat yi ñun bareetuñu lu ñuy wax amatuñu lu ñu wax te duñu lijjanti ji lu ñu wax duñ ko lijjanti ji man du ma jóg di dem fenn di lijjanti ji lu may wax parce lépp lu ma mësoon a wax ñu naan day saaga yaruwul nangam ak nangam foofu la ñu toll tey moo tax awma lu may lijjanti ji man wutuma woon bës man Sénégal rek a ma ñor te billaahi wallaahi tey la waalo gën a aay Sénégal rek a ma ñor moo tax heure bu ma xëyee dem liggéey ay jamono ben ñaari nit ñetti nit ño doon tok ci facebook bi di wax Assane Diouf ko tambali Assane Diouf ci bi ci xorom si Assane Diouf jël kaba tembal ndayam ci bir palais yëngal ñep kon amatuma lu may wari amatuma lu may wax tay ay millions yi doomu sénégalais ñi ngi tok ci facebook bi ñi ngi dénoncer ñi ngi wax ñi ngi xulo ñi ngi lijeenti

yéen patriotes yu Sénégal yi Macky ak Benno Bokk Yaakaar non grata ñun ñoom moom mbedd yi ñoom moom ñoom moom seeni kaso ah ñoom ñoo moom seeni juge ñoom ñoo moom seeni procureur ñoo moom seen gendarmerie ak seeni affaire di leen manipuler ñun ñoo moom mbedd mi jërëjëf waa CFA ndax mag Macky tegu fa tànkam de te xam na li tax tegu fa tànkam xam na li tax tegu fa tànkam parce que jot na mot d'ordre bi dañu ne c'est l'homme le plus informé ah jot na mot d'ordre bi ñun dañu am liggéey liggéey bi nekkatul ci Facebook bi rek toog di wax liggéey bi nekkatul toog sa canapé di naan ataay di werante liggéey bi nekkatul projet projet projet projet bi jàll na ba pare projet bi lenn kessel la révolution le Sénégal le loolu moy projet bi révolution bobu Mom la Assane Diouf déclenché And ak frère Ousmane Sonko and ak Barthélemy Dias and ak frère Malik Gakou and ak bépp patriote bougan Gueye dani and ak patriote les activistes Abdou Karim Gueye euh, honorable député Guy Marissa Sagna euh, honorable député euh, Birame Soleil Diop nous ñun ñooñu jeunes yu révolution bu kenn arrêté bu kenn de combat wallahi ay chars de combat te Sall deux semaines yi passé xam na que ay chars de combat bi nga xamanteni keur Massar na bi nga xamanteni le deux na. moom xam na ne ay chars de combat tiitalatuñu moo tax xoolal tey message am jàllul Pikine Pikine ñun ñoo ko moom Pikine moom mooy mooy xolu banlieue bu Sénégal bu dundee bu xol bi dundee lépp dëgg lay doon bu xol bi deewee lépp ay fen lay doon te xol bi day dund fi toll nii ngir yàlla war a suuli dañu am liggéey génn leen ci ay manipulation génn leen ci mbam mi mbam mi su ma nee mbaam mi xam ngeen ki may wax mbam mi monsieur product mbam mi fas bi seytaane bi génn leen ci bàyyi leen ko ak jeunesse bu Sénégal bu leen ci parce que li ñuy wut ñoom mooy ñun li ñu war a jël ci suñu temps génn wax ak askan bi génn wax ak ñi nga xamante ni amuñu téléphone génn wax ak suñu papa yi nga xamante ni mënuñu manipuler téléphone wala suñu maam yi wala suñu yaay yi li ëpp doole ci Sénégal tey voté xoolal ñoom loolu moo nekk seen bopp yi ba ñuy manipuler ñun ñu toog ci internet bi war nekk di wax rek loolu dafa jeex loolu dafa jeex te dañu toll foo xamante ni xeex bii ñuy xeex nekkatul xeexu cuune ah. nekkatul xeexu buzz nekkatul xeexu ay view nekkatul xeexu diw ay junni nit a koy seetaan nekkatul foofu parce que quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi du ñu ay waxatu dëgg dañuy toog rek di wax rek di wax rek di wax rek lu ñëw ñu ne maa ko gën a xam maa gën a mën a lijjanti maa non non non non non non non non non population bu Sénégal yeewu nañu ba pare yeewu nañ ba pare

5 ans ñuy sommes 5 ans yi jàll depuis 30 août 2022 Aujourd'hui, ñu 30 août 2023 Nous avons fait une ñun communication tas pour le Sénégal comme Nico Ousmane Sonko di Barthélemy Diaz Bougane Gueye Malik Gakou Guy Marisanya, Sagna Diouf Mortala Gueye nit dof ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen keneen foofu lañ toll foofu la ñu toll yéen patriotes yi génn leen ci manipulation yi génn leen ci manipulation yi même internet bii ñuy waxee wallaahi dañ koy manipuler te nit ku nekk ci biir di fa liggéey moo ma jox information yi ne ma mënatu leen a def lenn ci internet bi loo xam ne gis ngeen ko léegi avant may dugg ci page bi rek quatre fois dugg naa ko ñu koy dagg quatre fois dugg naa ko ñuy dagg affaire bi parce que ñoom ñoo yor internet bi te bu ma nee ñoom ñoo yor internet bi Orange day liggéey ak Macky Sall Macron day liggéey ak Macky Sall kon sama gars yi amatuñu jotu toog ci canapé yi wala jàkkaarloo caméra bi chaque jour di wax ñun ñoo moom mbedd mi ñun ñoo moom mbedd mi jërëjëf yéen waa Pastef ci dox bi ngeen di dox topp mbedd mi sensibiliser nit ñi loolu lañu soxla jërëjëf Ousmane Sonko ci dëggal gi nga dëggal sa bopp jërëjëf suñu baay suñu maam suñu baay suñu maam papa Ablaye Wade wallahi bu fekkee yow yaa sonnul ñun du ñu sonn ilaa yow mi diin man de du ma sonn parce man sa doom laa te bu sama baay sonnul wallahi du ma sonn ilaa yow mi diin yéen waa PDS ngeen jaayum carte yi yéen waa PDS man Assane Diouf doomu Ablaye Wade laa du ma mës jóg ci nekk doomu Ablaye Wade wallahi billahi barke yonenti yàlla Muhammad bis bu heure bi jotee rek wala waxtu wi jot rek ngeen xam ne man du ma mës jóg ci nekk doomu Ablaye Wade du changé ilaa yow mi parce que man xaw ma soppeeku xaw ma soppeeku fi ma nekkoon rek laay nekk moo tax tey fa bës bi nekk walla coow li nekk fa wala walla walla xeex bi nekk fa wala wala histoire ba wala lépp kenn du fa gis Assane Diouf parce que li ñu doon def def nañ ko ba pare li ñu doon def def nañ ko ba pare liggéey leen liggéey bi mbedd mi la mbedd mi la diggante Dakar Thiès Kaolack Jurbel, Tamba Casamance Kolda fep fu mu mënti doon ci Sénégal fep fu mu mata doon Matam Wourossogi, Fouta fep fu mu mënti doon ci Sénégal yeen patriote yi mbedd mi la mbedd mi mbedd mi ñom par force Macky Sall mi taxawoon ne suñu baye Ablaye Wade doo fi teg troisième mandat moom moo bëgg a taxaw ànd ak ay xale yu juddu bërki démb xale yu yaruwul tekkiwuñu dara ne par force Macky Sall dafay am troisième mandat moo tax mbedd mi APR Benno Bokk Yaakaar Macky Sall ak képp ku mu àndal Amadou Ba ku mu mënti doon non grata ci mbeddu Ndakaaru yi non grata yéen yéen moom mbedd mi moomu leen kaso de Mon moulin juge mon moulin leen police moulin gendarmerie parce que dañ leen a xàjjaleeg moom parce que dictateur la ñu nekkal moo tax yéen yéen a moom mbedd mi bu leen kenn dicté ci mbedd mi bu leen kenn wax bii alphabet mon nga war a wax ci mbedd mi wala bi alphabet mon nga war a wax sa kër parce que ku nekk xam nga li nga mën waa jidda caaroy kaw wane nañ ko de mitin ba sottiwul de mitin bi egul. parce que les patriotes sont là patriotes yi ñu ngi dund patriotes yi dañuy gën di yok. patriotes yi duñu wàññeeku duñu duñ du kenn mënuñoo wàññi kenn mënuñoo wàññi loolu mooy xeex bi Senegal. loolu mooy xeex bi bu loolu weesoo nag ma ñëw ci actualité dégg naa fan yi yëpp ngeen nekk ci mola mola mola mola mola mola mola mais Baye yi mola man jamono yële taxaw naa fi dénoncé dénoncé te li ma doon dénoncé ak ki ma doon dénoncé li tax ma taxaw ci caméra bi dénoncé ko parce que ñun dañu am xeex bu noobul bu ñuy xeex mooy waruñoo dem di wuti combat ñun waruñoo dem di wuti komba parce que dañoo am ay combat ba pare yu ñu war a bëre waruñoo dem di lijjanti ku ñu sosal dañoo am ay sos ba pare waruñoo dem di wuti ay kurpañ parce que am nañ ay kurpañ ba pare loolu moo taxoon ma toog dénoncé ci ay xew-xew yu fi am ci yeneen liveur mais après l'affaire dafa mel ne dafa dal sama kaw parce que xeex bi ñuy xeex du sos du fen dëgg kese parce que dëgg moo tax ñuy xeex dëgg moo ñuy dal ci kaw Macky Sall ah kon ñun ci suñu biir dañoo war a ba pare xeex dëgg ba pare di dox dëgg mais bu fekkee ne dañuy sos yee dinañ gis leneen lu dul mola sama téléphone fii woo ko jëlul sama téléphone ma yónnee ko message jëlul sama téléphone ci affaire Gabriel Kane mu toog ne ndaw si accidenté wul yee taxé ko romb talana fii laa toog ci siège bi woo ko jëlul ma bàyyi ko message wuyuwul mu toog ba mu neex ko mu di ma woo jëluma ko téléphone parce que man d'accorduma ak loo nekk-nekk patriote wallahi bu ay sos duggee ak fen génn naa parce que loolu moom lañuy xeex ñun

do nga dem ci ji lenen parce que ku mënta ci sa bopp mënoo ci kenn lu ne am na fi lu nek am na fi te ngir yalla dama bëgg ngeen xam ñi taxaw sax di wax naan Macky Sall nangam ak nangam ak nangam non Macky Sall amul lenn lo xamanteni jariñ nañu ko ñun Sénégal du lenn Sénégal du ay pont Sénégal du ay tali Sénégal du ay du ay oto char de combat Sénégal du ay minicaaru police yu bees Sénégal du ay du police yu bees Sénégal du ay armement police yu bees Sénégal dañu am problème mu problème mu dund ba pare boo demee ci hôpital yi nit ñaa ngi sonn wallaahi may bi may génn sama kër. jigéen boo xamante ni ci opération la jóge bi muy dem opération ci man la ñëw sàkku ma ndimbal ma dimbali ko pour mu dem def opération bi mu génnee ay ordonnance encore te ko ci man la ñëwaat encore di sàkku si waat ndimbal pour am ay ordonnance ci dëkk boo xamante ni dañu wax ne am na pétrole am na gaz am na zircon am na lépp ban réew la ñu nekk ban réew lañu nekk moo tax ñiy dugal seen bopp yi pour pourtant Macky liggéey na ay mbartal ay pont yoo xamante ni xoolal fi mu départ ak fi mu war a wàcc xoolal du mat sax quarante mètres te nag leen ba ci kanam accident yi ñuy wax nii day gën di yokk parce que amu ci benn pont boo xamante ni xoolal inspecté nañu ko ba teg ko ci yoon dañ koy def rek pour politique. demal ci BRT wala nga dem ci terre bi terre bi depuis États-Unis lañ ci doon wax kenn faalewuñu tey jii ngeen wëlbatikuwaat di ci wax mooy ñàkk a déglu bi sénégalais dul déglu dégg naa la rek mais pour ñu déglu la problème la pour ñu déglu la problème la te misaal bi mooy képp kuy dund Sénégal bis bu nekk sa papa wala sa yaay yónni la ci bitig bi nga ne waaw dégg naa la dem ba ci bitig bi fekk ñu yónni la xorom da ngay dëppaat ñëw ne yaay lan nga waxoon xorom nga wax wala poobar parce que du ñu déglu dañuy dégg rek dañuy dégg rek dégg naa diw ne nangam dégg naa diw mais pour nga déglu problème lay doon loolu mooy suñu problème ñun ma bëgg yéen patriotes yi lii ma leen wax nii ngeen boole ko ci seen liggéey bolé leen ko ci seen man kenn gënuma bëgg Ousmane Sonko parce que li muy la doon xeex barki Serigne Touba kenn gënuma bëgg Ousmane Sonko limuy muy la doon xeex kon suma ma ba gis sama petit frère nek ci lolu loolu limi Diaz ñëpp xol ba paré bolé ko fu ñu gisee Assane Diouf dañuy melné dañuy melné dañu mel ne ku gis seen seen seen seen waajur wala seen yonent cër bu mag sëkk muy ñoom ñëpp nag kon man amatuma lu may xëccoo amatuma lu may rayante préparer leen préparer du fauteuil bi ak caméra bi affaire yi terrain bi la terrain bi jël leen terrain bi ngeen liggéey li ngeen war a liggéey pour Souba. 11 mois moi nous d'essai, 11 mois 11 mois Qui biir 11 mois yooyu mi ngi wut ay mi ngi policiers te xamul ne doom lay dajale mi ngi dajale ay généralam di def réunion suñu yoon ci mi commissaire réunion mi ngi dajale ministre de l'intérieur am petit Antoine muy wër dëkk bi di kàcc rek suñu yoon nekku ci mi ngi jël benn mam mbay Prodac mam bi mbay mbaam bi mbay Prodac di ko dugal suñu biir muy def ay manipulation suñu yoon nekku ci lu tax ma ne suñu yoon nekku ci dama bëgg yéen ngeen gën a am ngeen gën a am taxawaay taxawaay taxawaay laa wax nag waxuma taxawantu waxuma déglantu mais taxawaay bàyyi lu romb rek ngeen dugg ci te xam fi ngeen jëm fan la moo tax man déggatu leen ma kenn dàqumaa saaga ba heure saaga jëm barki Serigne Touba ba heure saaga jëm kenn dàqumaa xeex ba heure xeex jëm kenn ku yàlla bind ku defe ne man damaa ragal kaso wala damay tiit ci kaso wallahi billahi barke yonanti yàlla Muhammad taalibe Serigne Bamba laa tey jii laa gën a ñeme kaso que démb ak bërki démb ak bërkaati démb tey laa ko gën a ñeme parce que dañu jëm ci révolution révolution la ñu jëm te révolution boobu ñu jëm bu fekkee ne ñun dañu bëgg a taxaw ne non <laughs> du dem kaso wala sama ça wala sama mal non soxlawul ñuy dem man sama Serigne Bamba pour Sénégal comme Ousmane Sonko fait... ko kenen ak kenen ak kenen ak kenen ko ba paré libérer libérer les détenus politiques Macky Sall bàyyil doomu jàmbur yi ngay tëj ci kaso bi Macky Sall bàyyil doomu jàmbur yi ngay tëj ci kaso bi avertissement la Macky Sall libéreel doomu jàmbur yi nga tëj ci kaso bi Macky Sall sa baay moomul Sénégal sa ndey moomul Sénégal Macky Sall wallaahi billaahi xolal di dem ba egg foo xamante nii di nga ne su ma yëgoon fekk su ma yëgoon weesu na boo weddee laajal Mouammar al-Kadhafi wala nga laaj Saddam Hussein wala nga laaj Mohamed Bachir walla nga laajte nga laajte nga laajte wallahi billahi di nga jëflanteeg ñun te su ma la ko waxee rek booyee boo nga gëm ko parce que lépp lu ma la mas a wax rek mi ngi say bët ngay wax naan réseaux sociaux yi ay picc yu toog ci internet bi di wax rek tey picc yooyu ñoo la teree nelaw picc yooyu ñoo la teree nelaw te man maay seen baay man maay seen baay parce que man maa yee li doon nelaw ci seen biir dënn yi liberté d'expression jooy li nga war a jooy xeex li nga war a xeex am yëg-yëg ci sa askan xam ne Sénégal li koy defar nekkul ci li ñuy xëy di waate bis bu nekk du, diw du. diw barke diw defarul Sénégal wallahi ñi ñi waté ñep dañoo takk seen ndig dem xolal pour Sénégal ñun ñi fi tok wuutu dañoo wara suñu dem pour Sénégal mais du barke diw barke diw mom garantie def leen ko seen bop yi Sénégal ay waay ngir yàlla yeewu leen Sénégal yàgg naa koo yuuxu yàgg naa koo yuuxu ngir yàlla ngir yàlla ngir yàlla yàgg naa koo yuuxu jàppale leen ñu ci ngeen yeewu jàppale leen ñu ci ngeen xam ne réew mi suñu réew la jàppale leen ñu ci ngeen xam ne li ñuy xeex xoolal suñu xeex la ñun du xeexu du xeexu ma Demba kese wala ma Paate kese wala Binte kese wala Ablaay kese wala Assane kese wala Ousmane kese wala Barthélemy kese xeexu ñépp la xeexu ñépp la loolu moo tax ma génn énergie bi nekku fi comme ni mu fi nekkee woon énergie bi li ci ëpp dañ koo def ci liggéey bi ak terrain bi moo tax mënuñoo jàkkaarloo caméra bi comme nañ ko daan defe bu njëkk mais heure bu wax jotee rek dinañ génn wax préparer leen le deux fep fu patriote nek ci Sénégal préparer leen le deux commencé leen ko hein commencé leen ko bu leen xaar ba le vingt-huit ngeen di déplacé wu commencé leen ngeen déplacé wu fépp fu ngeen nek ci Sénégal

révolution motax Amérique première puissance mondiale révolution motax Chine di Amérique première puissance mondiale révolution motax Allemagne que deuxième troisième puissance mondiale révolution France révolution révolution Angleterre révolution Sénégal parce que yalla may nañu nous ba révolutionner Sénégal pétrole gaz zircon lépp a ngi fi or phosphate garabi, yi reen yi ñu kenn dara lu tok suñu réew créer suñuy laboratoire génneel suñu bop lepp comme niko français yi défé bu ngeen xamé né garab yi ëpp solo ci aduna bi ñom tuba bi dañuy ñëw fi dañuy ñëw fi Afrique dugg ci suñu all bi xoolal jël ko yóbbu seeni réew dugal ko seeni laboratoire ba pare wëlbatiku ñëw di ñu ko jaay comme ni ñuy def suñu pétrole di ko def ci suñu gaz di ko def ci suñu zircon di ko def ci lépp lu ñu yàlla may muy wërsëg moo tax révolution mooy jubbanti Sénégal dégg naa nag jamono yi yëpp ay mbër yu ñàkk jom ak ay politiciens yu ñàkk jom ay kilifa yu ñàkk jom tamit yoo xam ne tekkeetuñu dara ci réew mi naan xeex bi xale bu ci génn di xeex ba ñàkk sa bakkan yaay perte wallahi billahi perte de perte de parce que li tax perte loo wóor na ma ne bu la fi xare badal fekkoon ba yonent yàlla Muhammad di dem di daas lu jaaseem di nga dem xare bi wóor na ma ne bi tubaab yi ñëw fii di jàpp say maam bu doon tey jii dinga nga dem daas lu jaasi dem xare ji wóor na ma ni wallaahi billaahi ni ngeen taxawee ne Ousmane Sonko kenn du ko laal wala ku ko laal jëflanteeg ñun yee xare boobu xolal moo xare Badar benn lañu barke yonent yàlla Muhammad parce que li tax ñu nekk benn mooy

jeune bu ci joxe sa bakkan wallahi billahi barke yonanti yalla Muhammad aljana ngay téré ji man maa la ko garantir parce que xexu askan la ñi leen wax naan ku ci ñak sa bakkan ñoñu xamuñu luy ñak bakkan ñom seen nastu bakkan lañu top auto bu rafet wala kër bu rafet wala terrain bi leen jox wala invitation yi leen invité wala maa doon fecceel président wala ma bëree drapeau président wala man le président recevoir non non non non non non loolu taxul nga dund bu fekkone ne day tax nit ki bañ dund kon Assane Diouf du dund wallahi du ma dund lu nekk dégg nako ko bugul dara waa nangam mais nekkul woon samay ambition ba ci élection yi passé bu ko neexoon nekk maire beaucoup ci samay ambition bu ko neexoon nekk député non beaucoup, beaucoup. parce que dama doon xeex yàlla lii la ma may ma ci lii du ma opportuniste man du opportuniste loolu moo tax ñu bari juum ci Assane Diouf du ñak fayda mais ñu bëgg-bëgg te nit ki ñàkk a bokk ak moom bëgg-bëgg bu mu tax nga taxaw di ñàkk ko wala nga wax ci moom loo xamante ni bokkul ak li nga xamante ni moom la gëm te man dama am ngëm-ngëm damaa am ngëm-ngëm ngëm-ngëm boobu mooy man taalibe Serigne Bamba la Serigne Touba xeexul woon dara pour poosam xeexul woon dara lenn lenn lenn pour poosam ku nekk xam na loolu motax comme mom lay waté ne mom la gëm yé ay valeurum, day compter ci man ay valeurum day compter ci man motax tax du wax chaque fois ma wax sax nit ñi duñ ci d'accord mais té da leen woor né ne wax dëgg la dama da leen woor né ne wax dëgg la ba paré may taalibe Alaaji Fàllu xëy di déglu bis bu nek Cheikh Mohamed Raphaël doomu Serigne fallu. doomu Serigne Fallou Cheikh Mohamed Rafaay jërëjëf taxaw nga sa taxawaayu baay wallahi yal na la yàlla may gudd fan yal na la yàlla may nga dund dund dund dund dundal dundal ay junni at boole koog làmmiñ di wax ñu lay dégg ndax Serigne Fallou looloo tax ñu bëgg ko ñun looloo tax ñu bëgg sëriñ Fallou yal na leen yàlla defal jàmm. defal ko waa Sénégal di ñaanal ñëpp jàmm xeex bi xeexu patriotisme la du xeexu parti du xeexu choix xeexu patriotisme la li tax mu nekk xeexu patriotisme ñun Macky Sall dinañu respecter par force Macky Sall dafa taxawoon ne papa Ablaye Wade yaa fi ne wax waxee Macky Sall da wax waqi waqet wax waqi waqet katch fenn ba sénégal yop tek ci sen beut motax dinañu respecter par force man fofu la ko tek motax lu bari dama koy réserver té li amone 2019 do am 2023 billahi wallahi man ak yow la won 23 janvier 2023 man ak yow ma taxaw ci Facebook bi suis venu la def Je neen mo futti la ba nga slip ñu juin mo futti la ba nga def bi final la final en 2024, wallahi billahi do fi Facebook. troisième mandat ak ku la ak ku la ci mënti jay ak kula mën mënti digal loolu xoolal bu la say mbokk bëggee nañ la téye parce que fii Sénégal doo fi am troisième mandat te ci biir la may fekk man maa la ko garanti xeex bi nag dafa soppeeku parce que comme nit bu la wóoree ne chaque fois mën nañ laa jaay doole niñ ko defee nit dof jaay nañ ko doole ci ay concert am jaay nañ ko doole ci mbedd mi jaay nañ ko doole ci expression loolu moo taxoon may saaga loolu moo taxoon may saaga fii ñi fi dem kaso ñëpp saagawuñu ñi fi dem kaso ñëpp ci nguuru Ablaye Wade ñi fi faatu ñëpp saagawuñu de seen liberté lañ doon xeex moo tax yeewu leen yéen waa Sénégal moo tax chaque fois Assane Diouf di yuuxu yeewu leen ngir yàlla yeewu leen aw ma leen lu ma leen wax yéen waa Jidda Caaray Kaw ñoo ngi leen di remercier Macky Sall non grata Pikine Géejawaay Caaroy Yëmbal Malika Diamaguène Diacksao Kër Massar Tivaouane Peulh Tëngéej Macky Sall non grata may leen ko muy wàcc jas rek di jël autoroute bi ak ay gendarme ak ay policier mais suñu biir mbedd yi non grata moom moom ay procureur am moom moom ay juge am moom moom ay gendarme ak ay affaire am ak ay chars de combat yooyu ñun ñoo moom mbedd mi ñun ñoo moom mbedd mi li muy tekki xam ngeen ko moo tax xeex bi dafa soppeeku xeex bi dafa soppeeku jere ngeen jëf yéen waa jidda caaroy kaw jere ngeen jëf yeen wa terrain magdan yeen wa waa CFA ngeen jëf yeen jeunesse bu pikin, jere ngeen jëf yeen jeunesse bu pikin, Macky Sall non grata <laughs> non grata fi kenn du ko fi tollanti te ñun heure buñ ko bëggee tollanti dinañ ko tollanti yéen waa Pastef yéen waa Diourbel Bambey yéen waa yéen waa li ko commencé Thiès Touba Daaru Musti Louga Ndar Colobane Gossas Gossas Kaolack hey ñoo ngi ñëw Mbàkke ñoo ngi ñëw Mbàkke ak waa Pastef bu ñu ñëwee mot d'ordre bi xoolal ak hymne national bi yoon man mii maa koy joxe préparer leen ko yàlla leen yàlla defal jàmm defal ko seen leader Ousmane Sonko defal ko leader yëpp ak conférence des leaders Khalifa Sall Malick Gakou Barthélemy Diaz Déthié Fall ah, tonton Habib Sy ah, ah, suñu yaay Aïda Mbodj Maymouna Bousso ak képp ku bokk conférence des leaders yàlla leen yàlla defal jàmm yeewi askan wi Déggeti 2024 Walu askan de 2024 dëggal suñu Bop Gum 2024 grand parti 2024 Bougan Dani 2024 parce que Kounek fille Sénégal a le droit d'une élection pour mu des Macky Sall le droit d'une élection pour mu Makisal. Bougan 2024 Gakou 2024 Assane Diouf 2024 samay Pono Auto 2024 sama moteur Auto 2024 Moussi de 2024 Hadi, Jinahi, Kanyei 2024 tout sauf Macky Sall 2024 tout sauf Macky Sall Macky Sall non grata qui raison Sénégal yépp mon moom ay yéen yéen a moom mbedd yi loolu mooy mot d'ordre bi non grata jeex na takk yàlla na leen yàlla defal jàmm defal ko Sénégal defal ko mboolem jullit defal ko mboolem. tàggatoo national Il le merci, Sénégalais Sénégalais Sénégalais Sénégal de base affaire de base conserver sa base Ne conserver sa base. après la yee ku nekk jël sa base rek na ko am man noonu laa ko gisee Amérique nekkoon dafa am lu ñuy wax primaire primaire primaire ñu koy wax primary en America démocrate dañuy génn xeex ku nekk sa base ñu def nii ba ñu xool leaderu base bi kan la ñu jox liggéey bi mu téye yaa ngi dégg noonu la parti yëpp war a def Sénégal parti parce que frère, frère au technique là, Macky Sall bruit yi bruit indi je ci Ousmane ah, conserver sa base conserver sa base Barthélemy Diaz Khalifa Sall Malik Gakou Bougane Gueye Dany Fall Assane Diouf honorable député Birame ah,

yee ku toppul ci moom rek dangaa weddi suñu borom moo tax man du ma weddi suñu borom ilaa yawmi diin du ma weddi suñu borom ilaa yawmi diin moo tax xoolal ki jiitu rek ñu jiital ko mais ku nekk na conserver sa base man géejawaay gii ma nekk ah, dinaa conserver sama base ba mu dëgër këcc bu fekkee yàlla daf ne Ousmane Sonko la Ousmane Sonko la fekkee yàlla suñu borom daf ne Karim Wade la Karim Wade la bu dee Malick Gakou la Malick Gakou la bu dee Bougane Gueye Dany la Bougane Gueye Dany la bu dee ku mënti doon moom la mais tout sauf Macky Sall tout sauf Benno Bokk Yaakaar tout sauf APR non grata non grata mot d'ordre bu Assane Diouf